Is it jërëjëf euh, Sarr TV sunu infos deux partenaires yoo xamante ne nii lum bon bon ànd nañ neuf ans ci ay années yu bëree bari pour liggéeyal Serigne Touba muy xel kom muy journée Sikrullaay muy journée xasida yi muy mbooleem activité yoo xamante ne nii ñoo ngi koy liggéey ci Touba fii daaw taxaw nañ fi ne amuñu kudu sëriñ bi su sëriñ bi soxlaa ndaw ñi nga gis fii xar kanam yii xammee nañ leen doomi dëkk bi lañ ay commerçant lañ heure bu sëriñ bi soxlaa muy xel kom jooju ma tudd muy journée Sikuru Laay muy journée xasida yi muy poroxaan muy marche bi nga xamante ni nii dañu ci doon kennal sëriñ Touba te yaakaar naa murid yi ndawi Touba namm nañ ko jàpp naa ne màggal gii dinañ ko lancé waat ñun foofu la ñu sëriñ bi nattoo muy liggéeyal sëriñ bi suñu amee suñuy bi bisu sëriñ bi la ñuy xaar ñu jaayante daaw fii lañ tase jàpp naa ne at mu jot day gën a yokk ndax soo daan xool sëriñ bi daan na ko jàpp lu mat ci fukki fan wala ñaar fukki fan ren dafa mel ne ci juróomi fan lañ ko waaj waaye lépp luy teraanga lépp luy bernde lépp luy xéewal tey la gën a yaatu tey la gën a xéewalee nga gis mbooloo mi ni mu la ma leen waxoon topp ñu kenn ku dul sëriñ bi ñun dañuy xaar sëriñ bi ne lii laa bëgg ñu defe ko ni mu ko bëggee moo Modou Yali ku ne xam na ne ak lu liggéeyal Bamba moo koy coordonné ak lu liggéeyal Bamba ak Mawahibul Akyaas benn jëmm la man may coordonné Akyaas mais su liggéey bi jotee nañuy àndee doon bloc liggéey liggéey bi ba fexe ba am ci ngërëmul sëriñ bi kon Sarr TV li nga gis fii daal lenn lañ ciy sàkku mooy am ci ngërëmal sëriñ Touba lenn lañ ciy sàkku mooy ndaw ñi nekk ci biir Touba te juddoo fi yaroo fi màgge fi ñun ñu xam ne dañu ma luñ kenn kuru sëriñ bi topp ñu kenn ku dul bi sëriñ bi la ñu yaakaar tey moom la ñu yaakaar ëllëg ndigalam la ñuy xaar pour nekk ci kon loolu du question yoo xamante ni yaakaar naa su dee miin nga liggéey bi nii lañ ko daan doxee at mu jot te nii lañ koy fas yéene di doxee ci bisu sëriñ bi. ñun dama ne la 9 ans Baye Fall yaakaar naa ndigal li ñu jot yàgg nañ koo jot waaye xëy na yeesal gi ko sëriñ bi yeesal muy topp saytu yi sa sàmm war may dëkk bi loolu yàgg nañ ko ànd ak moom. ku fàttaliku suñuy bale dëkk bi ay camions yu ndox la ñuy def topp ñi nga xamante ni ñooy Baay Faal yi su fekkente ne liggéeyu mbale màggalu Tuubaa dafa jot àggoon nañ ci di togg ay mbana di ko def ñun ñooñu ñooy suñuy jëwriñ ñun ak ñoom benn lañu liggéeyub sëriñ bi na leen ci sëriñ bi di ñaaxee noonu lañ ci sax maa ngi fàttaliku barki dem Baye Modou yàlla ne sëriñ bi nañuy sas nañuy joxu sas ñun foofu la ñuy xaar foofu la ñu nekk te foofu la ñuy continuer di nekk ñun daal Sarr na nga xam ne ay doomi dëkk bi lañ fi lañ juddoo yaroo fi màgge fi amuñu lu ñu ëppal sëriñ bi amuñu lu gën a kawe sëriñ bi kon lépp loo xamante ne ni ay ndigal la yoo xamante ne ni sëriñ bi joxe na ko ak lu mën a doon ñun dinañ fexe ba gën cee fës wala gën cee ràññeeku kon loolu mooy taxawaay bi te loolu ci la ñuy fas yéene continuer di liggéey ñoo ngi leen di jéggulu parce que mbir mi naan na euh, yaakaar naa pare nañ ci ndékki yi ñi ngi jëm ci añ yi añ yi yemb na soxna yi ko doon taxaw taxaw nañ ko ci taxaw bu mucc ayib li ci des mooy distribuer ko mbooleem li wër ci mi ak fi nga xamante ne nii ay barab la yoo xamante ndax bii ci guddi li ngay xam ne liggéey bu Serigne Touba nangu la Serigne Abdou Latif mi nga xamante ne nii moo yor liggéey bi ci biir jumaa ji ci boor yi 23h la ma woo Maguette Dior Modou Yali jox ñu point yi nga xamante ni nii moo gën a nekk ay stratégie xam ne mbooloo lañ fay nekk te war a xéewlu noonu lañ ko defee ci suba gi ci ndekki yi noonu lañ ko defee ci añ yi noonu lañ koy defee ci café ngoon gi bëgg nañ daal ba keroog mbooloo mi di tasaaroo lépp luy bernde lu xamante ne nii mbooloo mi war nañ ko barkeeloo dinañ ko ànd ak ñoom ba vingt heures wala sax suy romb kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi